waaw salaamaaleykum mbokk yi mbokk yi fi teew yëpp ak mbokk julit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar man maay Mor Fassa Talla vice président association Jëf te Yàlla tax maa fas yéenee wax ci kàddu association Jëf te Yàlla tax bu Touba Ndine. mu mel ni da ngeen a taxawal ak doona sax woote nit ñi wuy ci leen man yëg ngeen waaw sant yàlla rek comme niñ ko doon defee parce que lii dafa rëy waaye nag lu njëkk loolu damay sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñu wuy si di sant mbokk yi nga xamante ne ñoo jàppale ci bis bi. suñu mbokki association yi ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm mbokk yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal ci koñ bi suñu mbokk kilifa yi ñu ngi leen sant bu baax di gërëm waaw li nga xamante ne nag moom lañ yëg tey ci woote ñu wuy si la mooy yombut te ñun xam nañ ñu yombut ndax man sama yaram dafay daw sax fi mu nekk nii ndax boo xoolee mbooloo mi tey xam ne association Jëf te Yàlla tax lebalul leen lii seen baax rek ak seen ngor moo tax ñu wuy suñu waaye nag ñu ngi ci sant yàlla xañ na Serigne Touba mi nga xam ne moo tax ñu jóg di liggéey moo ñu bëgg a wan bi waaw doore sant moom li ma dëkk di wax di ko dëkk di wax rek maye deret moom ñun dañoo gis ni fi nekk ñun ndawi Touba gàcce la ci ñun ab melaat di feebar fii ci Touba doon taalibeeb Serigne Touba di dee ndax ñàkk deret te ñun ñu ne fi am deret wér loolu gàcce la ci ñun gàcce la ci ñun malaat nekk fii feebar ñu dem ba Dakar ba Thiès ba Louga dafa wuti deret di ko jox te murit Sëñ Tuubaa yi nekk ñun dañoo gis ne loolu gàcce la ñun te damay wax ni dañ ñaan maye deret dafa métti ma ne maye ñu lay may deret moo métti te balaa nga xam ne maye deret méttiwul nga war a tëdd ñu lay may deret waaw objectif bobu lañ am ci maye dara hmm. waaw li tax ñu tan sëñ Fallou ma ngay wax sank ñun nit lañu japp comme ñun duñ japp bàyyi ma duñ japp mala te Fallou nit la soko xolé rek xamni nit la nam suñu xamanté ak mom yagut waye melni bañ juddo ba légui moñu yar parce que tam olof day wax ni ñett yi kenn mënu koo dind ci nit muy ngor kenn mënu koo jënd diine kenn mënu koo jënd dignité kenn mënu koo jënd te ñun yaakaar naa ñun waa association jëf te yàlla tax moo ci raw ñun ngor rek nga ñu mën a ji ñu ànd ak yow ci ngor leneen loo ñu jaay lu talibe safuñu te Fallou gis nañ ci moom talibe gu mat sëkk gis nañ ci moom ngor moo tax fu mu ñu tàllal loxoom ñu tàllal ko suñu loxo jàpp ci bis nag sama diggante ak moo ci dox lépp lu mu coono bu ma ci war na am moo ma ko teggil kon bis bi li na ma ko man damay dugal lii di ko di am lu ma koy topp lu may topp moom te yaakaar man dinaa ko mën a fay nag waaye maa ngi ñaan Serigne Touba boole ñu dimbali man ak moom maa ngi ciy di santaale sunu marraine di ko gërëm ndax moom sunu yaay la ju a baax sono daba ko naate fi la nekk ci ay doom la ñu àndal waaye taxul mu gis loolu tey tànkam benn yoon chaque jour mi ngi jóg luñ nekk maa ngi ca ko woo mu wuy suñu kon donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di wax ne bis moom ñi ko tuddee ñëpp a am maanaam delloo buum ca boy boy rek dañoo defal loo xam ne ëppoon buñ amoon lu ëpp lii dañ ko tuddee waaye yàlla dogal na lii lañ amagoon nañ tàmbaleeg ñun ci lii jëm ci kanam yàlla baax na dernière question wax ne moom ndaw ñi nga xam ne mooy dëkk bi ma tàmbaleeg sama bopp rek di leen wax fii Touba la dëkk Serigne Touba la ndaw ñu fi nekk nañ comporte comportement taalibe Serigne Touba fii mun àdduna munta neex ba mu doon dëkku leneen lu dul Serigne Touba ndaw lu fi def lu dul li Serigne Touba bëgg dañ la fiy xeeb waaye kenn du la ci naw nañ yaraat suñ jëmm yi yaraat suñ kàddu yi xoolaat ñun ñooy kan jël suñ bakkan jox Serigne Touba jël nos yi bënn ci ay buum takk ko jox sëriñ Touba te xam naa ne du ñu wommat du ñu jaar la fenn furut fi yàlla bëgg te yaakaar naa ndaw li njariñam mooy mu jaar fi yàlla bëgg su ko defee bu màggee rek am mën a am noflaay ci magam suñ sànkee suñ daw tam buñ màggee dañuy sonn maa ngi dénk sama morom yëpp rawatina waa association jëf te yàlla tax ndax ñun ñoo gën a doy waar waaye yàlla nañu yàlla dimbali waaye nañ tënk suñu bopp ci njub sàmm suñu bopp ci njub topp suñu waajur yi ànd ak ñi ñu war a àndal di def lu baax di bàyyi lu bon ndax ñun Serigne Touba rek lañ bëgg lu mu nekk ñoo ngi koy yàlla bu ñuy fekk lu muy lu muy bañ. Euh, je suis le porte-parole adjoint du mouvement euh, ànd jàppale askan wi plus connu sous le nom de Madakaw vous donc, magnifier toute notre satisfaction euh, pour l'organisation et aussi saluer ces gens d'initiative. Parce que d'abord, euh, pour, ce qui, pour le soir de, nous avoir parrainé cette journée, c'est euh, grandiose. On ne peut pas les remercier pour ce soir. Parce qu'on euh, on est à Touba, les, les parrains ne manquent pas. Donc s'ils ont porté leur confiance à notre niveau, donc c'est une manque, de considération incommensurable. Et nous, nous, nous ne tarirons, jamais de reconnaissance à leur égard. célébrer cette mm-hmm. Encore une fois, magnifier leur acte parce que donner, son sang, c'est sauver une vie, comme on dit. Donc, il n'y a pas un, acte plus noble que de, devoir euh, donner son sang euh, dans l'espérance de pouvoir sauver ultérieurement une vie fils d'un inconnu. Donc on ne ses jamais. Ça, peut, même revenir à notre niveau parce que euh, euh, les accidents arrivent euh, tous les jours. Donc c'est un acte noble et nous invitons toutes les associations, tous les mouvements à, à faire de même parce qu'il n'y a pas d'acte plus noble que cela. Voilà, mouvement And Diapole Askanui, donc comme vous dites, Madakao est un mouvement qui, qui œuvre notamment sur le volet social. Donc nous sommes des politiques, c'est vrai, mais la politique, c'est l'art de gérer la cité avant tout. Donc nous œuvrons principalement sur le social. Et euh, pour cause, on a fait organiser une journée de dons de sang récemment, il y a de, cela que 5, mois environ. Et c'est d'ailleurs ce, qui euh, ce qui nous a valu cette journée d'aujourd'hui. Parce que l'association euh, Defte a voulu se mettre à notre niveau. Donc ce sont des collaborateurs et nous travaillons toujours d'aspect pour avoir ces organisations. Et c'est le début du commencement, comme on dit. Il y a d'autres associations et d'autres mouvements qui nous invitent à ces genres d'organisations. l'importance de l'association S'engager, parce que comme disait l'autre, les activistes d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain. Et la, euh, jeunesse est l'espoir de tout un peuple. Donc nous devons nous former. Comme disait Cheikh Antojop, formez-vous de sciences jusqu'au dents. Donc, parce qu'à à, formation égale, la, vérité triomphe. Donc, nous ne devons plus, sous prétexte que nous sommes des baobaboles, nous sommes de Touba, nous ne devons pas nous former. Donc, nous devons nous former, avoir les mêmes diplômes, les mêmes compétences que les autres et pouvoir faire émerger notre localité. Mhm. Donc euh, le dernier mot, ce sera, tout simplement un mot de remerciement. D'abord à l'endroit de notre coordonnateur, M. Falou Diop, mais aussi à l'endroit de tous les membres du, bureau et des associations, notamment euh, euh, et toutes les autres associations avec qui nous collaborons et tous les membres, de, tous les acteurs politiques de manière générale de la ville. auzu billahi min seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim barke Serigne Saliou Mbacke sama sang bi man la madame Ndiaye soxna maam Fatou Diop moom chef de service banque de sang hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. waaw waaw tey nag association ànd taxaw liggéey te yàlla tax bu nit ñi ñoo ñu woowoon pour journée de don de sang bi ñu ñëwee léegi si léegi ñi ngi jël actuellement on est à 75 donneurs té nit ñi jeexaguñ ça veut dire que liñ fi escompté won dinañ am lu ko plus lu ko ëpp parce que fi yaakaar nañ nañ fi jëlé plus d'une centaine de poches lool nak lu ñuy rafetlu la parce que Touba ay jeunes jël sen euh, xalaat ne ñoom dañuy maye dere rek te yalla tax loolu vraiment exemple à suivre ñi ngi koy def nak jeunes yi commencé nañ ko nak di def euh Touba parce que bari na barki demb ñi ngi won côté yoonu Daaru Rahman ku ñuy wax euh, Manel Fall moo ko organisé woon euh, am na daal association yu bëri tout le temps dañ ñuy woo si don de sang kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di ñaan yàlla sëriñ Saliou ñaanam gi egsi na nit ñi xam lan mooy don de sang ndax sa wérgu yaram la ba d' abord avant yaram u ki ngay yëkkati te sëñ bi nee na xeetu jaamu yàlla yëpp. may deret da cee gën a kawe ndax nee na ki nar a faatu nga jox ko sa deret su dundee lu askanatu si moom yaa leen fi indi wax sëñ Saliou du samay wax kon dangaa jiyaar defe naa ne jamono jiñ toll nag desewuñu lu dul di jaar parce que àddina jeex na ba pare kon nag yal nañ yàlla taxaw képp ku koy def rek li nga ci yéene di association yal na nga ci am lu gën a kawe sa boot ci barke Serigne Saliou Mbacke. léegi boo bëggee def don de sang bu fekkente ni individuel nga benn nit la ñun banque de sang hôpital Matlaboul Fawzeyni dañuy liggéey du lundi au vendredi nu génnul comme nii de 8 heures à 14 su fekkee ne association nga mat ngeen une quarantaine de personnes jëm kaw. su wootee sama numéro c'est le 77 632 67 72 dañuy ñëw fekk leen fi ngeen nekk ñu ñëw ñu jël leen comme ni ñu def association bi donc ñun mën nañoo déplacé wu su dee ñu bëri lañu su dee nit ñoo xam ne bëri wuñu nag ñooñu mën nañoo ñëw hôpital maye fa deret ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëñ Mountakha Mbacké yàlla bàyyi ko fi mu yàgg lool te wér sëñ seexum sëñ saaliwu sama sang yàlla bàyyi ko fi mu yàgg lool te wér ba mu yeggale naaru sëñ saaliwu te mu sut baayam ba sant jërëjëf sant yàlla ba noppi sant sama ñaari waajur sama borom kër bi nga xamee ne bañu lu ma dara lu ma am fii tey moom laa koy sante muy papa Seyni Ba ba sama pël bu rafet boobu na nga xam ne waa ko sama borom maam yi jaguy naa tan bu tan bu Souleymane ndax su ma maytoon liberté totale bi du ma ko ah may sant nak ki nga xamee ne tamit moom waral ñew fi tay ci Touba mom moko sa sëñ fallu jappale ko ñu dëkk fi tay ci Touba di sant sama sëriñ bu ñaaw bu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhla di sant sama yaaju ju baax di soxna mami Mbacke gannaaw kàddu gogu ma delluwaat di sant ki nga xam mom lañu la muy sëñ fallu Fall Modou Mbenda sëñ fallu Fall mom moy lepp sama borom kër moo ñu dëkkoo dalal ñu yor ñu muy sëñ Mbacke Fall sëñ Fallou Fall mu sëñ Mbacke Fall ah gannaaw sëñ Mbacke sëñ Fallou may sant Baara Fall ndax li jëg njaagata mooy njaag defe naa bi sama jëkkër ñëwee indi ñu fii ci dëkk bi muy sama borom kër moo ñu teete tey ba lii lépp am man su ma waa paaleen xamee tey ba di ma tuddee bés defe naa baara faal ci la ah may sant dëkk samay dëkk samay dëkk mooy sama rëkk yi nga xamee ne fu ma dem ñi ngi sama wet soutenir ma bàyyiwul ma benn yoon ma wéet di sant samay dëkkandoo yii sama ginnaaw ànd ak man ngir bis bi may nag di ñaan ci kàttanal yàlla yàlla mën a kàttanal yàlla na kàttanal xale yi waay xale yi sigil na ma ci digg ndindi xale yi defal na ma tey loo xam ne lii man mbette la ci man damaa bég ba mënumaa wax ndax am na kilifa yoo xam ne tey dama leen fee séentoon tey bu ñu toogoon man du ma wax muy soxna Maawa Mbàkke mu sëñ Moodu bu sa jag di sëñ Fallou Fall xew-xewi àddina rek moo leen tënk ba egsi fi tey ah di la ñaanal yàlla loolu yàlla na gëj xale yi nag ma lay ñaan seen association bi yàlla na jëm ca kanam fépp fi ñu koy séentu yàlla na kawe seen njort association bi defe naa ne tey jii képp koy ndaw wala képp koy mag tey xale yi yeenan la ndax organisation bi rafet na tubaab fakàlla macha allah yaakaaroon ko joon ci xale yi don de sang bi tur wi ko tuddee seen association bi moo waral lii jëf ta yàlla tax ta yàlla tax jooju nag fekk na ba ca malaaj ca kaw lal ca ca kaw lal ya ñu jëf ca ngir yàlla te yàlla tax yàlla nañ yàlla fay ma mit te loolu rek tax may ñaanal xale yi lu daal seen président ba si seen vice président ba ci seen secrétaire maa ngi la ñuy ñaanal yàlla bés bii ñu ma tuddee yàlla nañ ci yàlla defal ndam ju rëy rëy rëy rëy rëy man damaa kontaan man soxna si man ba mun maa wax man daba ko naat gërëm naa xale yi di lay ñaanal association bii daal nekkaat na loo xamee ne soññewaat la bu buñ jógee ci lii maanaam dañuy toogee waxtaanewaat ko bu ëllëgee bu deuxième édition bi ñëwee gën a ampleur bi gën a neex bi ah lañ cay séentu mu gën a yokkuwaat ndax dañuy dooraa door rek waaye suñ première édition bi yàlla doon suñ jiglaay yàlla doon jiglaayee xale yi xale yi daal lépp luñ jortoon ba tax ñuy def lii yàlla na sa suñu borom taxaw gën lañu dooleel ba association bi ñu di ko dégg ca kanam ñi ngi dégg association bi yëpp nag maa ngi ñaanal yàpp la nag ñëpp ñi nga xamee ne ñoo ci jàpp man ma dara ma dara waaye samay dëkk jàpp nañ ci kenn ku ne bi ngay ñëw dama ne la rek ñëwal mais en vide waaye da ngaa bañ kenn ku ne def nga sacrifice pour am loo indi rek pour participer ko ci jour bi pour ñu jàppale ko xale yi maa ngi lay ñaanal yàlla daal yàlla na leen yàlla yàlla lay taxawal doole la ñu dooleel ci barke Seydina Mouhamed ci barke sëñ Abdou Karim Mbacke mi borom Makarimal Akhlaq yaakaari jaam yi jërëjëf sëñ bi